tok fi di ñu sen day am lu ngeen di wax ku ci bëgg lo wax ñu day nga dem xolali Macky Sall conseil yoko jox pour mu delu ci wat ci réew point bar mais soxla wu leen ci dara na leer de boy yi fi nekkon dem na nday yenn pay ño fi nekkat dignitaire bu fi genn dinañ tey société civile bu fi genn dinañu tégal li ñeneen ni dégg mom ngay dégg dégg li ma leen wax ñun soxla soxlawuñ leen ci dara tant yeena ngi wax nak ñu ngi wax ta duñ ko waxe ni ngeen koy waxe de ñun duñ ko wax ci démocratie duñ ko wax ci xam-xam parce que yeen xam-xam bi gëna gaaw moy di wat sen yi rek moy sen moy xam-xam bi ngeen mérité parce que len passu len ku bëgg ngeen nako doko fi pousser ku bëgg a ngeen nako doko fi paase yak rek ngeen def def defu leen dara lu baax du ngeen xalaat lu baax amu len lu baax doxu len ci lu baax bëggu len lu baax bëggu len ko gis lu baax bëggu len kuy dox ci lu baax pour muy clair ci tous alinti sa morom ak seeni télé ak radio rajo seeni dignitaire ak kër yi ngeen di dugg ak fu ngeen mën a dem wuñ leen ci dara Ousmane nak yak jomay lay waxal seen histoire da ngeen gën a fort Mamadou Dia seen histoire da ngeen gën a fort Cheikh Anta seen histoire da ngeen gën a fort Senghor seen histoire président yi fi mësa jaar yépp yéen a leen gën a fort yéen a leen gën mën politique yéen leen gën a set loxo yéen a leen gën a bu len kenn dugal ci ay histoire nangam ak jaar na fek nangam yefi tapala la la wax li ngeen fi def at mi amul kenn ku ko fi def na leer bu len nangu ñu di len damat ci len xalé nak yeen lay waxal histoire yag na fi ken musulen ko jangal ablay wad jaar na fi ken jang ko fi Mamadou Dia jaar na fi ken jang ko fi Iba Der am yagul dara histoire senegal la fi bëggoon tek ñu molu ko ba mu xey tàggu len dem alakhir ñom ñoko jale ñom ñoko jale lu tax Ousmane Sonko ñew ak basirou jomay ñu bëgg fe jangay histoire ken xamut pour jema mengale nit ñi dugal seen bopp yi que ni ñaar ñiy fal force dañu war a ñiiroo ŋaayoo dem leen ngeen ŋaayi seen clé yi ñun xiiroo wu ñu ŋaayoowuñ te réew mi dañ koy gouverner de par A par B dañuy gouverner dañuy gouverne ba mu neex ku mer ñu say jël gaal gi dem paa yi jël gaal gi war ngeen a mën a rénover rénover leen booy yi te jël gaal gi te dem dañuy gouverner de na leer dem leen nag télé international fu leen neex ngeen dem gis nga booy yi ils sont national ils sont pas international ci bir national bi lañuy tok liggéey li ñuy liggéey ta ciop ndayam du ko ci mën pour muy clair na leer li la amone pour wax ko nak ta dañ koy wax nak di nan ndox di contane duñ ko wax di merde dañ koy wax di nan ndox di contane yeen ñep lay waxal nak radok rado rado mom buma len fi deggete dina ratos ba ngeen en arrière ñun wuñ len ci dara ousmane ci lu ñu bëgg yobbu mak basirou jomay budé safara la bëgg nañ bu dee jaxal na ma bëgg nañ bu dee dañuy ñuy xiifal bëgg nañ bu dee li ñuy def dafa wex kaani bëgg nañ lépp préparé nañ mouchoir yeeg yépp bu dee sot coronavirus lañ fi indiwaat bëgg nañ luñ fi indi rek bëgg nañ seen yoon newu ci ñoo ko fal ñoo ko xeexal ñooy cotiser ñooy def lépp kat seen ndey fële soxlawuñ seen dara xalaatuñ leen ci dara soos bi ñu def ñun lu ngeen ci dugal rek day yàq suñu soos soxla soxlawuñ leen ci dara nag seen kanam yi sax xëy di ko gis dañuy ma mer waaw Macky Sall newoon na ko fekk newoon nañ ko sa kanam dayam bëgg gis dañu ojol mu bañ puus nañ ko ba muy ojo yéen nak bu ngeen moytu Alioune Tine yaag sa gangor gog société civile di ngeen ñuus jé ci ay ojo de ngeen lima leen wax suñu lamb ñi dafa am toke de parce que coono gi dafa yag ci ñun ta jamono yi yalla ñun la jox nopp de lu leer la leen wax lu ñuy ñaan lu nekk di ngeen ne yeen ñep seen kër yi joy ta kenn du leen fajj génn leen ci ñun bayi leen suñu nguur bayi leen suñu bu nga mu ci garab gi bu len dugg ci ker gi joxe xaliss ngeen bëgg amatu fi menace amu fi yàqale amu fi xale yi nak yewu len taxaw tam tak sen dig amul nelaw on a élu on gouverne ensemble de ngeen Ousmane li wax neena pastef buñ bëggee tok 50 ans nañu don sen opposition bop ñun ñoy lijeenti mbot yi nek suñu biir ñun nu ngeen dégg nga Alioune Tine len leen ngeen ak fa ngeen far société civile doomu xar soxlawuñu len pour muy clair soxlawuñu len de soxla soxlawuñu len say bu ngeen toogee ci télé yi pare leen ngeen xam ngay nañ say ku sa yaay nek alakhira xamal ne dina ñëwaat ci réew soxla soxlawuñu len de soxla soxlawuñu len vidéo yi ngeen def yëpp ñu ngi teey ci all bi ba ngeen ba seen yaay di yuuxu bayyi len vidéo yi daw len télé yi ta ngeen tok seen kër yi ne pat ni ngeen ko defee won 2021 ba léegi ñu ngi tarax tawaxu len do meram kan ngeen nek ay nit kañ ngeen baax kañ ngeen international bi ñu rayee ci réew mi amu leen ci njëriñ waxu leen ci yéen daal bëgg ñu toog pour gouverner ngeen ñëw pour yàq kat na yéen ak international ñun faalewuñ seen ndey ñun dañuy national te dañuy gouverner Ousmane day dox ci tapis rouge mu neex leen day bonde mu naqari leen day bonde dañ koy taala albar bu bon mu neex ku mu naqari nga gaz toog ci comme ni ngeen ñu ko waxee woon pour muy clair na leer yem nag